Cheikh Mamadou Bassir ñu ngi lay nuyu ci tuuru sunu jëwriñ Sëriñ Abibu moom Cheikh Mamadou Fadal ñu jëwriñu Touba kanam ak mboolem waa Touba ca kanam gépp nu ànd ak ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal liggéey bi kilifa yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi ñu teew nii ci sa kanam xam naa mu tuddee sëriñ Cheikhouna Mbacke Douyoly sëriñ Cheikh bu mu sëñ Daam Atta sëñ Matulaam sëñ Abdou Fatah ak sëñ Abdou Fatah gi mi nga xam ne mooy jëwriñ ji bokk yi ñu yëpp danañ mën a dugg ci biir ñu di la bu baax di nuyu sëriñ mi nga xam ne it mi ngi ci jataay bi ak sëriñ Youssou Diop di jëwriñu bis bu tawte ya te ku jàmbaare tey jàpp ci liggéeyu Touba ci kanam moom ñu ngi koy nuyu bu baax ñu di la nuyu Cheikh Mouhamadou Bassir di la siyaare di la jottiloo am nuyoo ak siyaare nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba di ko ñaanal suñu doom yàggal ko fi lool te may ko ak wér mboolem lépp lu mu naal yéene koo defal Serigne Touba mu defe ko na mu ko bëgg te ñu ànd koo moom ci bi di la ñaanal yooyu tam yow mi nga xam ne yaay yu ñoom mu fab liggéey bi teg ko ca loxo yàlla na la defal ndam lu kawe sa yàlla mi aji sàmm ji aji musal ji yàlla na la sàmm te musal la te aar la nga bañ am menn ndox ci bàkk sëriñ Tuubaa nga ciy sàkku di na nga ci dajeeg moom loolu nag jataay bi di jataayu soññee ci ci kanam ndax lii nga xam ne yëkkati nga ko teg ko ci sunu loxo wax ne Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko jox kuréelu Tuubaa ci kanam mu toll ci fanweeri million ngir ñu jëmee ko ci liggéey bi ñu nekkoon muy ci mbënn mi muy waajtaayu màggal ko xam ne jege na ñu ngi ci te jàmp na te ndox ci dëkk bi bari na Touba ci kanam nekkoon ci doon ci jéem di ci nam na bi ci taw bu njëkk ba ba léegi ba ci taw yi mujj yi fan yi yëpp ñu ngi ci génne woon nañ ay som ngir jëmee ko ci waaye bu sëriñ bi yëkkatee lii nag teg ko ci loxol Touba Ca Kanam ni nañ ko ci jëmee loolu Touba Ca Kanam ab soññee la ko jàppe lii ak laxasaay gu ñu sëñ bi jox takkal na ko ngir nu gën a farlu gën a góorgóorlu gën a dem ca waaw loolu lañ ko jàppe la ci ndax sëriñ bi moom noo ko jox waru noo jox kon su yëkkatee ne lii def leen ko ci liggéey ba kon dafa xam ne liggéey bi ab liggéey la ma ab liggéeya ma moom lañ koy liggéeyal mu bëgg ñoo soññi ngir ñu bañ a taxaw bañ a geesu kon lii ak laxasaay lañ ko jàppe ñu ko ci sant bu baax na ndax yëg na Touba Ca Kanam bàyyi na xel tubaa Ca Kanam ci lépp ca ba mu tàmbalee ba agsi fii waaye nag jataay bii ak jëf ji gën na koo firndeel ndax su ne nu woon nii laa ko bëggee la woon ca compte yooyu yëpp dem leen wax ko andil ma ñu tey tey tey ab ab dërëm dafa naan ca compte ka ndax dafa nekk àll sëñ Touba te mooy sëñ Touba moo ko moom kon du fa ba tey di ci teg di ci teg naan dafa def def leen ca kon ab soññee la ci Touba Ca loolu nag noonu waa ci waa ci kanam ñu ngi ñaan mu ñaanal nu yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa bañ dégg ba mu dégg lim no bañ dégg lim na wax ndax dafa dafa wax ak noonu wax ak taali bi yëpp itam ci Tuubaa ci kanam ndax ah, bu fa bay alalam def ci bépp taali bi bu ko dégg kon da nga xam ne sëñ bi bàyyi na xel kuréel gi te liggéeyaloo na kuréel gi kon na ku bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa yaakaar naa kon bu waa da bàyyi xel kuréel gi yow itam waaye nun waa Tuubaa ci am na nu sas bu mag ndax lii sëñ bi def ab soññee la boo xam ne war nañ koo xam te jàpp ko te gën cee soññiwu ba bañ a taxaw bañ a geesu bañ a bañ a euh, gis suñ bopp ci lenn lu ne ñu gis ci sëñ Tuubaa te xam ne lépp sëñ Tuubaa ndax lii rëy na lool bu ko sooboon mu jox nu ndigal na mu ko bëgg ne dem leen def ko te benn dërëm du nu ko jox te te moo na ko joxoon te ña nga ca woon kon suñu ca fekkeek lii dañuy soññ daa bëgg nu gën a farlu daa bëgg nu gën cee góorgóorlu waaye nee ko Cheikh Mamadou Bassir yow mi nga xam ne yaw la ko la ci yow ngay jéego ñoom ci liggéey bi te it yàlla suñu borom dimbal la defal la ci tawfeex mboolem mu lay liggéeyloo nga di ko defee na mu ko bëggee yàlla na na nga ko xamal ne ko cantu Touba Ca Kanam moom lottu nañ ci wax ko ci làmmiñ xanaa dañ koy bàyyi ci xol yi li ci di ko ñaanal bu baax a baax yàlla yàggal ko fi damay ko ak wér te àggale ay mbébétam ak naalam ci bàkki Sëriñ Touba yàlla na ko suñu borom defal xar baax dund waaye nag ñu lay yóbbante ci moom ginnaaw cant gi ne ko li lim na wax day fas nañ ko yéenee dégg muy soññ bi mu sonn soññ fas nañ ko yéenee dégg bu baax a baax te soññ ko ci bu baax a baax ndax lii moom kum soñ bi liggéey sëñ tubaa nag bu sëñ tubaa yëkkatee jumtukaay jox la ne la demal liggéey kon war ngaa xam ne sëñ bi liggéeyloo na la te loolu rek lan doon ñaan moom lañ bëggoon sëñ bi liggéeyloo na kon lii suñu xol sedd na ci suñu xel dal na bu baax itam nag suñ yaakaar yi gën naa dolli bu baax a baax ci tubaa ci kanam gannaaw sëriñ tubaa mosu cee juge juge jële loxoom waaye liggéey bii fabaat na lii toll nii defaat ko ci ngir ñu ànd ñu liggéeyal ko sëñ Tuubaa kon suñ xel gën naa dal ci ne sëñ Tuubaa ànd na ci liggéey ndax lu moom sëñ Cheikh Mouhamadou moom lu mu ànd rek na tëbliwu ni sëñ Tuubaa ànd na loolu moom yaakaar naa ne ñàkk waaye ñàkk ñàkk basira xam ne fu sëñ Tuubaa jublu fu sëñ Mountakha jublu fa la sëñ Tuubaa jublu te it lépp du ñaanam ko nangu wax naa ko fan yi bu yàggul nee naa ko la maam Cheikh Ibrahima waxoon day feeñ na ci yow lam ne woon ku fi nekk sëñ Tuubaa su ñaanee ñu may ko su tineew ñu tin ko waaye sa ñaan gii de ñëpp xam nañ ne yàlla nangu na ko te may na ndax ndox mii ñuy wax ci dëkk bi lépp ñaan gu nangu rek la ñaanal bu baax a baax ba yaakaar ñi am ci Tuubaa ci di ko ci wane yàlla bu mu mukk nanu ñaanal bu baax a baax ba seytaane mi mën a yàq te lu baax lu jug mu jéem koo dogale nanu ñaanal ba mu bañ am mukk aw yoon ci Tuubaa ci kanam nanu ñaanal ba àgg fañ jëm te bañ am ndox ci bàkki sëñ Tuubaa. jëwriñu sëriñ Ayib Mbàkke Cheikh Mouhamadoul Fadil mi nga xam ne moo leen fi yabal ci ndigalam ñuy ñu leen di jotli kàddu yu nuyoo sëriñ bi ak kàddu yu cant ak ngërëm yema ko ci yàgg boo dem kilifa yi nga àndal yëpp ak bokki taalibe yi ngeen yëpp den jot li nuyoo sëriñ bi ni ma ko waxee léegi wax ji du gudd ndax eh, yoon yoonu jëf rek la lu ñuy def rek Sëriñ Tuubaa lañ koy defal te moom lañ koy seereel kon moom lu muy def Sëriñ Tuubaa la koy seereel yéen na xam na ne yéen a ngi ci waaru bu dégg ba cëkk te lu mu leen digal ngeen def ko bu leen digal tam génn jéem a dàkk ndigalam loolu nag moom wulaayika yusaari'uuna fil xayraati kon loolu rek mooy li ci am kon sëriñ bi neen mu ngi leen di sant di leen gërëm ci liggéey yi nga xam ne yéen a ngi koy taxawu yëpp ci dëkk bi te li ngeen ciy def lépp dara génnu ci dëkk bi moom ngeen koy defal te saa su ngeen agsee ci moom yëg cofeel ak jàpp gu rëy gi nga xam ne am na ko ci yéen ngeen xam jom ak yitte ji nga xam ne moo leen tax a kon nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax ci barke Serigne Touba mi nga xam ne moom ngeen jug ngir fas yéene koo liggéeyal yàlla mu mu gàttandu leen ci bu baax fa ngeen yéenee àgg bëgg fa jëm lépp mu defee leen ci tawfeex ngeen àgg fa te dara bañ leen a ndax xam na seen njàmbaar xam na seen yitte lii nag bëriwut doo ko tàmbalee rek ndax xam nga ne joxe woon na juróom fukki million yoo xam ne ñu ngi ko tegoon ci loxo suñu Youssou Diop mu yóbbul ko gouverneur bu njaareem boobu ba tey ñu ngi leen soññ sax ndax nit ñi fi ñu toll ci xat-xat. waa xam nga état mënta def dara te deful recensement recensement bi nag moo yàgg ndax lañ nattoon yaakaar moom la doon cib lim ndeke weesu na ko di wéy ndax ndeke dem na ci ñaari junni ak juróomi téeméer xam nga ñaari junni ak juróomi rek boo xoolee buñ leen séddale woon cinquante millions ku ci ne ñeenti junni nga am kon loolu bëriwut lim bi mën naa nur lu bari looloo war rek sëriñ bi comme na ma ko waxoon ci njëlbeen nga da ko tàmbalee ndax boo jàpp ne ëpp na téeméeri kat. daa tàmbali woon loola moo taxat moo taxit mu génnewaat lu mat téeméer million ak juróom fukk fas ko yéene dugalaat ci biir ci biir liggéey boobu nag mu jël ci fanweeri million ngir xam ne ñëwoon ngeen ci moom laaj ci ko ndigal te xam na ne ñaan gi képp ngeen di séentu ci moom ndax taalibe yi am nañ positif joxe te ñu ngi joxe waaye nag lépp lu ñuy jëfal Sëriñ Tuubaa yëfam di caa war dugg kon noonu rek la lii moom kon lim jëm ci fexe ba manque ndox mi ci biir kër yi ndax son ni ñu ngi doon ñu ngi xool sax ba xam eh, tànt yi nga xam ne ministre de l'Intérieur am na fa ngir ñi ñi nga xam ne mënatuñoo dëkk seen biir kër ñu ngi ko waxee ñu du seet ci kër Sëriñ Tuubaa fu ñu leen dugal maa ngi ci doon waxtaan ak sa yëf bi léegi bu ma noppee yéen rek dinaa daal di jokkoo moom waaye sëñ moom ak soññ rek la ci jublu ni mu ko defee itam ni la jënde ceeb bu bari ak diwlin Euh, ngir jox ko sëñ Youssou jot mi bu ànd ak daayira Hizbut Tarqiyyah xëy ñu séddale ko ci ñi jotoon na recensé ba noppi ndax loolu boo xoolee juróomi junni boo xoolee ñaari junni nag juróomi téeméer boo boo doon xool ku ci ne nga jox ko saako ceeb képp day met cent cinquante tonnes mat na ko te bokkut ak diw gi ak dolli ko waat gouverneur yi ñu ngi xool mu jéem a seet nu mu dollee li nga xam ne moom la tàmbaloon di ko joxe kon loolu mooy lii ngir xam ne nag ndegam yéene woon ci waaru daaw def ci liggéey yu solo ba moom ci boppam mu gërëmal leen ci boppam ñëpp rafetlu ko ren ngeen tàmbalaat ci lii kon faaw moom itam mu feeñal ci ndax ni mu mu ko waxee rek am na ci loo xam ne état la war ñoom itam lañ ca war def ñoo ngi koy def waaye bokkuñoo yéen fu nu ngeen di jëfe ak fu seen liggéey di jëm kon loolu mooy lii rek ñu tàmbali ko te di soñ képp ku leen ci mën a jàppale ci oto walla wala gasoil wala lu mën rek walla suuf wala lu mën doon loo xam ne daal dana gën a yombal eh, nit ñi ndax màggal li des bëreetul ay bis la laaj na liggéey bu farlu te gaaw ngir màggale ci biiru ndox moom dara gën a ko métti sëñ bi rek moom nee lim ci jëf wutaloo ko liggéey bi muy def. ndax euh, lépp taalibe Sëriñ Tuubaa yoo ko fi indi kon nag bu ñu nekkee ci jaaxle lu mu ca ci taxawalee ba ñu génn ci rek dana ko def nee na wutale ko loolu noonu rek la ko jàppee kon yéen itam ñu ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, ngeen gën a góorgóorlu rek te xam ne euh, li kullin illa sha'wil wala xarakaatu walakin azizun li rijaali subuutu mm-hmm. jug jëm ci lu baax yomb na lool waaye li jafe mooy fexe ba sax ca ndax mbooloo saa su yëkkati ko rek seetaan de jug taxaw seetaan nag mooy yuwaswisu fii suduuri naas min sharril waswaasil xannaas allazii yuwaswisu fii suduuri naas day dugg ci biir xalaat ak xel yi den jaax sa ku ne mu lay gis gis la sa te loolu bokk na ci li gàllankoor mbooloo li am solo na kon mooy li ñuy def ñu koy seeral yàlla tey xam ne kenn ku ci ne di seet siñ Tuubaa ci sa digg sa morom bañ cee dugal bakkan bañ cee dugal bànneex bañ cee dugal dara ndax Sëriñ Abdou Lahad neewoon na yàqu bakkan yàqu seetaan moom Sëriñ Tuubaa dindi na fi loo fi gis mu yàqu rek yàqu bakkan la ak ak euh, waaye seetaan moom Sëriñ Tuubaa sori na ko malaktu nafsiya wa zahzahatu laayin mooy loolu kon nag eh, ñi ngi sant bu baax rek tey dalem xëy bi liñ bokk ci sëñ bi yëpp dañ ko liñ ko jël teg ko ne ngir xam ne ak taal bi mooy jaay ci sëñ bi mooy sëriñ Abibu Cheikh Mouhamadou Fadil yàlla na ko suñu borom dëgëral te sàmm ko te mot li yéenam ndax ku amul dogu la ku engagement da ci bi def Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi itam noonu li ñuy seere si Abibu la ñuy seere ci moom ku ñëwee dëggale ko bëgg Sëñ Tuubaa ku bëgg yoon wi la yaa ngi ci des topp seen ginnaaw yëpp itam muy eh, suñu seex na waajuram sëñ bi la xam nga ni mu ci biir yoon wi maa ngi koy wax barki dem eh, moom it bàyyi na lépp ne ci liggéey bi suñu seex bu suñu daam atta te suñu doom moom itam ku jàmbaar la posté fa jiite rek ne ci moom ak suñu mor suñ doom mooy itam Cheikh Abdou Fatah Cheikh Abdou Fadil mooy itam jàmbaar la yitteem positif mu taxawaayam ak yéen taalibe yi nga xam topp seen ginnaaw te mooy ci tuddee sëñ Abdou Fatah Gueye mën a yóbbaale yi ñu ci des ñëpp ba ci Moustapha Dieng Xaalim ñëpp bàyyiwuñ kenn dal waaye li am solo rek mooy eh, gën defu nas mel na kurus rek mel na kurus nekk jënd jëmm isa staka minhu udwun tadaa lahu shahirul jasadi bi sa wal huma te xam ne fu ngeen àgg rek def yoon say moo leen fa àggale kon nag ñeneen yàlla dimbalee ci barke Sëriñ Tuubaa ngeen dox ba agsi fii mu ngeen fexe ba defaat jéego yu ko gën a ëpp ngir sàmm ko ndax ndam moom yàllaa koy joxe waaye nag nit koy sàmm suñu bi laa wax ne barke coonaa koy téye

salaam